di leen ziyaare di leen baal xaq di leen baalu it xaq di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci site bi Cheikh Ibrahima Fall point tey ñu ñëw ak yéen ci li ñu leen digoon mooy émission bi nga xam ni baaxoo nañ ko am ak yéen ci sa ayubis bis ju ne muy Bamba ki gaayam ñu waxoon leen ni leen dinañ leen indil jaar-jaari mag ñi jaar-jaari sëriñ bi jiitu ci euh, loolu nag li ko sabab mooy léegi dafa am euh, lu ma doon waxtaane ak sama mbokk moom sëriñ Saalihu moom sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdul Ahad mooy kilifa bu mag dafa wax ni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 mel ni mbooloo yu bari dañoo jóg ngir taxaw ci fàtteloo ñu lanu amoon mooy li nu am te mooy Sëriñ Tuubaa te njariñul nettali Sëriñ Tuubaa li mu def lépp ak fi mu jaar fépp bu ñu koy nettali war naa am jeexit bu def ci murit bi bu bokkul ak yi bu bokkul ak yéemu ak jooy jeexit jeexit boobu mooy xool ni Sëriñ Tuubaa du muy jaar fii fépp bëggul lu dul taxawal lislaam rekk ak baatub sunu boroom nekk lu kawe kon bu demee ba loolu antu waruma nekk kuy sàggane lislaam ak di ko doyadi li ma war kay mooy e, nekk nit koo xam ni day taxawal lislaam ak di ko liggéeyal ba tey lima war kay moy di ndegam Serigne Touba xal na yoon wi ba nopi ma sobu ko te xol lim da def makoy roy te serintuba wax ni Serigne Touba kenn mënu ko roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la sunu borom wax ñukoy roy te Serigne Touba mo donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Serigne Touba neena na mak yeen ngeen gis ma wax ngeen deug jëf ngeen gis man nak gisuma ci jëfam lu wuuteeg sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégguma ci waxam lu wuuteek lislaam mbooleem lim wax leer na ak lim bind ak lim def yàlla nañu sunu borom may ci daraja yi Serigne Touba ak dégg ak topp te saxal ñu ci ak bëggam te euh, te euh, musal ñu ci def lu mu gërëmul euh, nettali boo koy def faw nga wax ay solo maanaam nit dañoo wax ni laa xaq li man laa la lahu dëgg bu fekkee amu benn sukkandikukaay amoo benn tegtal nee na mënoo am dëgg ba tax na li ma leen digoon ki nga xam ni bokk na ci njabootu sëriñ Touba di ku ragal yàlla di ku maandu di ku am xam-xam muy sëriñ Alhaaji Bakke def na ay gëstu yu xóot ci jamonoom xool naa ni sax man gis naa ni ci jamonoom bokk na ci ñi gën a marqué seen jamono bokk na ci ñi gën a jàmbaare bokk na ci ñi gën a liggéeyal Serigne Touba ci wàllu gëstu ba tax na lu ci baree bari dañuy sukkandiku ci moom moo tax euh, safwatu siira fi siirati sayx fi siirati say fi siirati xadimi xayril basar ci la ñuy ànd ak yéen lu ëpp kon nit ku nekk war naa jéem a xam jaar-jaari sëriñ bi ndax mu mën a xam fa teg tànkam xam li ko sëriñ bi bàyyil mu xam ndonoom nit ku nekk war nga gëm sa bopp gëm sa bopp nag buñ ko waxee mooy góor góorlu nga jàpp ni sëriñ bi mession bi nga xam ni moom la fi bàyyi yow rek la war loolu tax na benn waay ni laatu tuxaarin nafsaka maa ay shaxsin fi l aalam fa innaka in faalta saalika ahanta nafsak nee na bul comparer sa jëmm ji ak jënn jëmm ci monde bi ndax loolu boo ko defee rek doy del nga sa bopp ndax yàlla sunu boroom e, mboolem mbindeef yi mu sàkk yëpp kenn ku nekk am na benn hëdëf benn objectif bu tax mu sàkk la objectif boobee nag yow yaa koy jéem a réaliser te bàyyi kaneen ak la muy réaliser kon taaliba bu nekk war naa gëm ni wërta nangu kenn gënu koo bëgg Serigne Touba wërta nangu kenn gënu koo ëpp pasteef ci Serigne Touba wërta nangu kenn dàq koo liggéeyal Serigne Touba te loolu la ci diitu mooy sax ci ak njub kon seen mbokk Saalihu Mbàkke Hamzatu mooy ànd ak yéen ci jaar-jaari Serigne Touba di ko doy di ko xeebu di ko néew xam-xam gàtt alliwa lool di dogal ngant ñëpp ndax ñu bari gën nañ ma ci yey waaye sàkk tuyaaba rek moo ma yóbbe lii ma doon taalibib Serigne Touba di jaamam di fas yéene ko liggéeyal te itam fas yéenewu maa yemale dara ak Serigne Touba. loolu maa ngi ñaan ñëpp seeral ma ko ci àddina ak àllaaxira may sàkku képp koo xam ni diglu nga wax ji nga ñaanal ma mu nekk tuyaaba fii ci àddina ak àllaaxira kon ñu tàmbalee ci njëkk feeñu sëriñ bi njëkk sëriñ Tuubaa di feeñ ci zahir jamono ju doy waar la ndax jamonoy ngóor la ak ndamu ak naxaate ak jaay doole alxuraan sax daanañu ko wattu waaye dañ eh, waaye dañ ci daa puukarante ak a njabarante a xeex xam-xam yi itam amon na waye dawuñ ko jang ngir yalla suñu borom dañ ko daan jang ngir bëgg daraja Serigne Moussa Ka mi ngi junju dara ci loolu bi mu ne l'islam di joy yëkkat ba genn gaday ci soowu jant fep mel fep fépp mel Ken amutul amatul khasdu li llahi ka nga ki fore faf di janin laahin janin laahin nak moy chaahan ak fop nga xamni li daraja ca jamono jojja moy doon bur wala ngay mbokam wala ngay ab attekatam wala ngay ab dagam soko ko nga mëna am ak wolu ci sa bop ak sa njabot tuba bi yitam yilif am fi doole lol nit ñi ragal leen lol ba ag ci gis ab tuba day mel ni malaaka la gis lolou la serigne bi di junj ci way wi wa minhumo man in ra an nasrani min malaa'iki rahmani nga xam ab tuba buñ ko massa gis dañuy daw ngir ragal ko ci seen alal ak seen njabot kon nonu la jamono melone njëkk serigne bi di euh ñu wax ci gane aduna ak serigne bi serigne Touba mi ngi gane aduna ci Mbàkke Bawal bind kat yépp maase nañu ci waaye fan la ci Mbàkke Bawal buñ ci duggé du ñak ak wuute motax nu bayiko lolu mi ngi don atum 1270 ci gadda yi manam atum junni ak euh, ñaar témèr ak juroom ñaar fukk suñu waxé ci gàddaay gi nak moy bi yonent bi jëm ak madina maanaam diggante bi yonent bi gàddaayee jëm makka maanaam gàddaayee makka jëm madina ak bi sëriñ Touba gane àddina mu ngi toll ci junni at ak ñaar téeméeri at ak juróom-ñaar fukk loolu itam bindkat yépp maase nañ ci am na benn naar bu way ni xat wuli dal xadiimu man xat charaa chariatal muxtaaria ma charaa te mooy at moom ma wax léegi hmm. léegi loolu booy xool ci atum tubaab day tolloog cent cinquante 1852 moom lay euh, moom moom lay tollool ci atum tubaab euh, li am solo nag mooy euh, gàddaay gi te ñëpp maase nañ ci donte am na ñuy wax mille cent 1853 ak cent deux ak mille cinquante 1851 ak cinquante 1854 wax yu bari yoy mom amul njariñ li am solo rek moy gi te ñepp oh, maase nañ ci ban bis la gane lolu euh serigne abdourahman loo wax nako neena altina la tolok fukki fan ak juroom ci wéru baraxlu kan moy wajuro mu gor serigne Mamor Anta Sali moy wajuro mu gor Mamor Anta Sali mam habibullah moy mam mam habibullah Muhammadul Kabir moy bayam Muhammadul Kabir mam habibullah la bayam tuddu Euh, ba Mouhamadul Kabir mi ma wax ci ginnaaw moom la ñuy wax Mam Maharam moo sancoon Mbàkke Bawal ci atum mil cent 1192 maanaam atum junni euh, ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi tolloog 1789 ci atum tubaab atum tubaab nag mooy juddug Seydina Isa alayhi maanaam bi Seydina Isa ganee àddina ba lee ba ba ba ba nim sancee dëkk bi amar ngone sabel moko ko dogalon waye taxul mu mu man fa dëkk mo taxon mu lo fa ab taw muhammadu farima loolu mi ngi ci irwa un nadim bu sëriñ muhammadu lamin job dagana kan moy wajuru mu jigen wajuru mu jigen moy soxna jariyatullah buso sering muhammadul mahmun ñang neena maryam buso la tuddu ñukay wowe woowe soxna jaara nag askanam mi ngi bokk ci tukkulóor yi nekkoon guleer ci fuuta tooro nee nañ sharif la ndax askanam mi ngi dayo ci saydina hasan doomi saydina ali karamallahu wajhahu waaw kon loolu mooy eh, gane àdduna sëriñ bi kon ñu ñëw ci wàllum njàngam kenn waxul ci ñaata at ci la sëriñ bi tàmbali njàngum alxuraan waaye xam naa ni ci waxtu wu teel la ndax bi muy jël werdu xaadir fukki at ak eh, ñaar lay war a am fukki at ak ñaar lay war a am te booba fekk na mu mokkal alxuraan nijaayam lenq ju ñuy wax sëriñ bu busoobe moo ko dalal ci li sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax waaye tuuti la ko jàngal jox ko ku ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe euh, moom nijaay la ci soxna jaar nijaay lenq la ci soxna jaar tafsir moomu jamonoy noor Mbàkke Bawal la daan nekk jamonoy nawet mu nekk Jolof moo jàngal sëriñ bi ba mu toll la taj dan na asadan booba ci la faatu sëriñ bi dellu ci sëriñ Mamor Anta Sali di fa àggale am njàngam booba sëriñ Mamor Anta Sali ngi Saalum bi mu àggalee alxuraan ci waajuram ba noppi la tàmbali di jàng xam-xam ba jàng lu bari ci moom booba itam wax nañ ni daa farlu woon lool am xel lool euh, amoon na xel moo xam ni ñu bari yéemoon nañ ko euh, wax nañ ni itam daana def ab euh, ay bayit di ko yët xaadima jaxate kala bu ko defee mu ko koy toppal xaal yi da koy wax del andi may mokkal waaye mënatuma top nga xamni ne raw na ko sëriñ Modou Mamoune Niang nee na sëriñ Touba mësta laxas benn yoon di jàngi ndax fofu mu nekkon fi la ñëpp daal laxas di jëm ci muy kër serigne Mamour anti Sali ci biir njàng na bañu bari ji ci ci dongay serigne Mamour anti Sali di sawara a ci mom lol manam xeemeem di jang ci mom ngir aw lammeñam da da da leron lol te serigne Mamour anti Sali dafa xawoon a bar wax nañ ni Maam Moor daana ko jàngal bind boo xam ni ka ko war a jàng ñëwagul ngir bu xëysee sëriñ bi jàngal ko ko te moom tollu àggagul ci bind boobee loolu sëriñ Mouhamadou Lamine jóob moo ko wax ci Irwa na Nadim ci diir boobu ci diir boobu nag ci la sëriñ Touba taalif Mawahibul Xuddoos bi nga xam ne Umul Barahin la ca way wax nañ ni sëriñ Maam Moor Anta jàngal na ko ñaari doomam sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ak sëriñ Afia ba tey ci la taalif al jawharu nafis ak mu layinu sudóor waaye masaalikul jinaan nag mi ngi ko waaye mbàkke bawal nee nañ daana dem ci njaañ ci benn naar bu ñuy wax muhammadul yadaali daa fa jàng bayaan ak mantix waaye diir boobu yi euh, sëriñ bi yéeme yéeme woon na lool waaye weesu weesuwul jàng ak jàngale ak taalif ak jëfi xam-xam waye ku deggalon waajuram la seigne mamour ante Sali lol sëriñ basirou waxna ci benen baxil khadim ci xëtu 46 ni sëriñ touba masna netali ni samba Lawbe Njaay mi nga xamni mo moo ci mo moo ci buuri Kajoor yi mas ci sëriñ mamour tok ak mom ci kaw lalam da di koy wolo. sëriñ mamour yabal ñu woo ko mu ñew mu ni ko Sàmba Lawbe mi da bëgg nga and ak mom dem ci kërëm mu jappelé ab sëriñ nga mel ci mom ni ma mel ci ndijaayam la jor néna mu ne ko bam mu kon daal di dellu ci négam bi sambalaw bi bi sambalaw bi génnee fekk mu tok ci der di japp sëriñ bi wacc jox ko ko ngir mu daarante ak masla waaye nanguwu caa toog mu tambali diko ko waxaat walu dem gi mu ko khalatuma dem di fi wàcc ñi nga xamni dañu fe ñew ngir xam lu seen diine mu ne ko waaw bu fekkee loli aw naaru goor wu bax la ma la ko jox nee na mu jël ko ngir maslaa ba mu demee fekk am na ñett ñu ñu ko topp ñoo xam ne ku ci ne ameel na ko baru téeméer nee na mu tëye leen jaay naaru góor wa ci ñetti téeméer seddale leen ko ñu sant lool ci biir nettali bii nag danga ci xam lu bari lool ci ndëg ci dëggal gu sëriñ bi déggal sëñ Maamor Anta Sali ndax noonu mu ñàkk a tontoo ci kanamam du dara lu dul bañ koo euh, bañ koo déggal lu ko naqari ak bañ koo ak bañ a wuuteeg ndigalam da nga ci xame itam ay tegginam yu bari sëriñ Mamour Anta nag laata muy nelaw la sanc Mbàkke Kajoor waaye ñaari at euh, la fa am daal nelaw kon euh, euh, sëriñ bi am njàngam noonu nii la deme ñu ñëw ci ginnaaw bi nga xamee ni sëñ Mamour Anta Sali làqu na mi ngi nelaw ci tam xarit atum 1300 mooy atum junni ak ñetti téeméer ci gàddaay gi tolloog 1880 ci juddug Seydina Isa alayhi salaam bu muy nelaw Sëriñ Tuubaa ñëw na ba ci wetam tari alxuraan ba mu jeex guddik talaata la nelaw loola Sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo ko wax ci Irwa un Nadim xatu 26 euh, ñu rob ko deqale ku ñuy wax Taïba Mohamed Ndumbe Marsil la moo ko jullee bi mu ko jullee ba noppi la wax ñafatee woon teewoon ñëpp ngeen diglu ma am lu ma leen wax balaa ngeen a dem dal di jaal ñepp dal di ni serigne bamba jege sel ko dama bëggoon buñ jógee fi jaari ca lat jor nga fasante ak mom, wëllëre wa sa baay fasante won ak mom mu tag la fam tegoon sa baay te lolu dana bax ci yow serigne bi sant ko ci lim wax ni ko waaye dem ci këri buur ngir dar ngir daray àddina jomb naa ko lol bi serigne bi waxee li ñu bari ci mbolo mi dañu ndax jamono am lu melni da jafé am ñuna ab dofla am ñuy wax lenen ci booba ci la way xasiida gi xaalu liyarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kullama xiini fa xultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayral ilmi wa diini walastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yuxniini wa yunjini ba xasiida ga jeex di wax ni nit ñi ñi ngi mën a demal ci bunt buur yi kon danga am loo jàpp waxtu wu ne ma ne leen yàlla sunu borom doy na ma te doyloo naa ko bëgguma lu dul xam-xam ak diine ma kudul sama borom yaakaaruma kudul moom bu ma soxlaa moo may suma soxlaa moo koy faj te moo may musal ginnaaw lii nag la nit ñi gën a jaaxle ci mbiram waaye teewul mi ngi jàngale ni mu ko daa defee ci jamono yi suñ Mamor Anta Sali kon ginnaaw bi sëriñ Mamor Anta Sali wàcceeb liggéey loolu yi moo fa xew euh, kon ñu wax ci ni sëriñ bi tàmbalee ak tarbiyaam ndax waxna la ne la ginnaw bi serigne Mamor ante seli laqo bañ proposer ko loolu dafa bañ dal di sax ca lamu nekkon moy jang ak jangale ci yor yoru ci yor yoru koor e, ci atum 1302 moom manam atum junni ak e, ñetti témèr ak ñaar ci bisub aljuma ci la serigne touba jog taxaw wax ni ndigal dama bayiko ko fa rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam dani ma del yar sa gañi bañ mëna xam yalla té bay ñangalem kese mi ku lolu doy togal te and ak man ñu waaw ku lolu doy na nga tok te and ak man ñu dem ku mu doyul nak man nga dem fo mëna aggalé sam jang am ño xamni lolu doy na len bañ tok and ak mom am ño xamni gëm nañu wayé dañ jang mo len fi andi woon buñ jàngatul dañuy dem fu ñu mëna jangé bokku na ca gaay bokku na ca gaay jëkka toog sëriñ abdourahman ak serigne Massamba jog Sam ak serigne Adama gey ak Hasan jai, Hassan Ndiaye euh, serigne dam abdourahman Lo nak da nekkon mbakol ci jamono yoyu waaye bi serigne Touba waxe loolu ci la ñew dal di jaayante ci bis bi serigne bi tambuli di tarbiya gaayam yoyu ci xif ak mar di leen tuddloo yalla lu bari di len liggeelo ngir seen xol set ba mëna xam yalla sunu borom xar xol def def ci ñu sop ko lol képp ku yàlla nara gindi def nga sopp ko lool waaye teewul ni ko ñuy soppee ni la amee ñu ko bañ ni la amee ñu ko bañ a lool wal xayaasu billaahi ngir siiw gim siiw ak dara ji ko sunu borom jox ak ni ko nit ñi déggale nga xam ni jëfe jaral na leen lu ne mu du nit ñi tàmbali di ko lor ci àndandoo yu ci àndandoom yooyu yi lor yu metti boobu sëriñ bi mi ngi mbàkke bawal waaye loolu yu metti yi tax mu toxu ca penku Mbàkke Bawal atum 1304 mooy atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent ci gàddaay gi tolloog 1886 euh, ci atum tubaab loolu la Sëriñ Abdourahman Lo wax ci téereem boobu yi te foofu mooy Daru Salaam mooy fi mu toxu Daru Salaam googu la Sëriñ Mahamadul Moustapha gane àddina guddik ajjuma ci atum 1306 mooy junni ak ñet témèr ak juroom ben waye téwul bi lor jéxé wala mu néw nit ñi di yok ñim nekkal itam di am ay soxna di am doom té loolu day waral jaxaso bi di yok té tarbiya lajul loolu mu mujju demaat ci wetu càmmooñu daru salam sanc fa touba ci mujjantali 1305 ak ci tàmbali 1306 moy ci ben atum junni ak ñetti téeméer ak juróom ak ci mujjantalu atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent ci gàddaay gi day tolloog 1888 ci atum tubaab foofa la sëriñ Mahamadul Fadili gane àdduna ci at moomu ma wax léegi ci kazu rajab sëriñ Baare nag ci atum 1308 mooy junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett ci gàddaay gi la gane àdduna waye teewul lam doon bañ muy jaxaso bi di am ba legi bobé la tàmbali da xalaat ci tuxu fenen daal di mam maam Thierno wàlluk njàngalem xam-xam mi fétalé serigne Abdourahman do walu njàngalem alxuraan mi serigne Bakki bu sa nek Touba doon buntam daal di ànd ak mbolom mu deugal momé wuti jolof ni yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam tuxoo woon jëm Madina loolu mi ngi doon ci atum 1312 mooy junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar ci gàddaay gi tolloog atum 1895 ci atum tubaab bi mu àggee Mbàkke Baari mel ni waa dëkk ba loolu jubuwu leen ndax dañoo njortoon ni day wut nguur rek ndax boobe kenn xamul kenn maanaam kenn xamul wut yàlla taalibe yi itam ku dégg ne sëriñ baa ngi foofu mu daal di ñëw kenn jareetul ci sëriñ bu so waye tewul serigne bi mom liko taxajuk mi ngi ci waxtu wone muy ye nit ñi ak xamal leen ak xamal leen seen diine ndax loolu la ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam digal moo tax mu wax ni wa min ajaib ibn abdillahi salla alayhi bi salamillah baaxin أداء ardahu بالأولياء إلى القيامة وكل وليا سنته وسانه عن بدهن تبشيره قديمه بفسده أمره صلى عليه الله في الآل والسحب ومواله بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل زمن وأنه أوصله عن تخلية لربه مبشرا بتحلية بقنتي كما ci kiimaani الله تعالى عليه وسلم بقل جم بقل bégal بما bégal وأعرض عن المشركين مانام ومن عجائب ابن عبد الله جوجي أه أه حرف جرلا وخمني دفع لام وخبر مبتدا من ياغي تبشيره جوجي ما خبرم وموتخ موي بقنا تي كيمان يما يننت صلى الله عليه وسلم بغله موي لما وخنما أه بما تومر وأعرض عن المشركين ginnaw bi ma rekke ci lépp lu bon takayel ma lépp lu bax agale ma ci yàlla ci bir lolu dana xamle bopam bu bax ngir bëgg ñëpp mëna a ci mom neena hafistuma xafistuma siina dafatiri fala takun an qidmati bi watuna lo xamni nekkul ci téré kon nak bul tayel ci liggéeyal ma nasa ali wa laysa minni yansahu wa innani bihi himan wa mafsahu sunu borom joxnama lo xamni dootu ko nangu ci loolu laa nekk ab wéeruwaay akub làqukaay ak tërbiyaam itam ni mu ko daan defe mooy kum xool ba xam li gën ci yow dala ciy féetale am na ñoo xam ne da leen di jox werdu xaadir am ñoo xam ne da leen di jox werdu tiijaan am ñoo xam ni da leen di jàngaloo alxuraan am ñu muy lëggéeyloo am ñu muy bindloo nee na xaddul iraadati bi xawli saada tarkul muridi maa alayhi al aada ثم رجوعه إلى المحتاج قبل وصوله كالارتداد إذ المريد لا يريد أبدا خير رد الرحمن حيث خسد دق دق أب مريد موي باي آدا مريد بي دل تي آدا تي أقول تي يالا ميني ملني كو مرتد داخ مريد مريد ورد بق لدن نغرم يالا سنو بروم نانا صفات صادق المريد باختزار أربعة نزمتها خوف اختراف الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك لاعتراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما قدره ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات melay مريد bu dëggal ñeent la nee na maa ko way ngir ragal waru ba ci jëkk mooy ñaaral ba moy topp ndigalam sa so déggee sa so ko déggee ñettel ba moy bañ ko dinget donte ci sa xol la ñeenteel ba moy dindi ak ak ak tan ci sa bop ngir rafet njort ci mom ñent yi murid bu ko bolé da nga dab ñu mag ña daana wax ni fa shaykhu la yukhalifu al musafaha faman naha amral muraddin tafaha ab duu du wuuteeg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci dar kon kuy topp ndigalam di jariñ ci bir li lepp nak noni ñom ñi ngi dem ak dik ngir ngir ngir ngir xet pexe muñ mëna jaar ba yaqal sëriñ bi tuba bi itam dañ da def dañ dan def suuf suñ dem ba nat ko dañu jël nit ci ñom tek fa ño xamni dañuy and ak ñom ci lepp su ko defé lu xew ñu leen ko yegal ñu mel ñoo ñii nag ñoo doon def ay pexe ak dox tànk ngir fexe nu sëriñ bi génne te xamuñu li ñuy fexe mooy yëkkati sëriñ bi am na ku ne wa isaa araada allahu nasra fadilatin tuwiyat ataaha laha lisaana hasoodi bu yàlla bëggee tasaare ngëneel lum taxañoon da koy jaare ci làmmeñu ko iñaan ñooñu di dox di dem ci tubaab bi ak ak a ñëw di leen wax ni sëriñ bi day dajale ay nit di leen tàggat te lu na ni pexeem jubee ci sen kaw la jëm ci bag nañ ci sax di ko rek ku melni cheikh omar fouti tal ak maba jaxu ak ahmadou cheikh ba li motax ginnaw sabu batin bi buru ndar bindu ko leetar di wo waye serign sëriñ bi wuy siwul loolu gëna a waxi shaytan yi ndax ñak wuy si gi serign bi serign bi sax na ab leetar jox ko maam cierno ngir mu andi ko jox ko ko letter bi la ca nek moy xamal gu ko serigne bi doon xamal wuute gu mu ak ñom ak di wax ne ko ku len wax ludum lolu day fen li motax ginnaw sabu batin bi burub nar bindu ko letter di ko waye serigne bi wuysiwul loolu lool waye serigne bi wuysiwul loolu gën a dëgëral waxi saytaane yoyu serigne bi sax bindat na ab letter jox ko maam Cerno ngir mu andi mu andi ko jox ko ko letter bi it la ca nek moy xamal bu ko serigne bi don xamal wute gum ak ñom ay way ak di ko wax ni ku len wax lu dul lolu day fen waye maam cierno bu mi jox borom ndar letter bi fek na mu yabalon mu yab mu yabalon ñu jël si serigne bi war war ko jël war ko jël mbàkke bari andi ko ndal diggante bobu bari na lu fa xew mam cierno bi mu ñëwé ci serigne bi waxtu fajar fekk mu julli ba teg euh, ba takk ngir dem daa tàmbulee nettali sëriñ bi dog ko ne ko xam naa lépp daal ni ko njaboot gaa ngoog nee leen denk naa leen yàlla ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak seen baay Cerno fekk jot na ndigal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ko demal tebul ragal ak wor yiir ko ci mboolem dori موتاح موني وجعل المختار صلى الله عليه في الآل ومواله له عجابا مانعا من الضرر ثم له خالم شلا تخشى الخرر بمي جن باك باري مو تولو فكي فانك بروم نيان تيويرو سفر موي ميل 1313 موي اكم جني اك نيت تيمير اك فوك اك نيت تي غداغي موتاخ مونا خرجت يوم السبت سا من عشر لقمة المختار في سهر سفر tolok juróomi fan ci weeru tubaab ci ci ci muy septembre wala luko yes ci atum 1895 ci tubaab kon euh, mbokk yi ñi ngi yem ak yéen foofu ci seen jotaay insha allah allah fas nanoo andu and ak yeen ci demu géej ba insha allah ñi euh, mu demee ak la fa xew ak ba mu àggee ndar ak li xew ci géej gi ak ba mu ñibbisee incha allahu fas nanoo ànd ak yéen daal mboolem jaar-jaari Serigne tubaa yàlla nañu suñu boroom defal ak dégg ak topp wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin